xam nga rek euh, euh, jataay bi euh, tekki na boppam ndax lu waay di séq nit ba di ci am aw digg bu ngeen xamee seen diggante ngeen fexe ba am ci aw yu loolu dafay gën moo tax lii ma di ko def ndax fi ne ñun ñu ngi nii benn su ñun ñëpp bokkoon nekk taalibe murit kon du jar ñu nekk fii naan sañ El Hadj Malick bokk na lii bokk na kii bu ñëpp nekkoon taalibe maam El Hadj Malick it du jar ñu taxaw fi naan maam El Hadj ndax lenn lu nekk ña ca bokk daanaka loolu bu ñu ciy wax ak bennoo loolu taxul ñu wax da ngay fekk que nekk ci kër gi kii ne ci kër gi pour kër yi nekk benn ñuy mën a taaj benn ak ñëpp di añandoo ñuy seet kenn ku ne li nga bokk ak sa morom mooy tax pénc ma mën a fees loolu dong moo tax ñu koy saytu di ko tasaare di ko dugal ci internet bi di ko pas partagé ba kenn ku nekk mën a xam fa ngay teg sa tànk ñun ci googu wet la ñuy yëngu te bi del fa gannaaw bët bu set ci la ñuy xëy te it ak jaamu yàlla la it nag ndax jokk mbokk yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp ku koy def na la wóor na ñu ngi lay jokk ci àjjana kon nag loolu noonu ban ko gisee di ay jullit gëm ni wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax moom la suñu borom tànn ñu jël nag li nga xam ne mooy diine ji yàlla ne inna akramakum hindallaahi ataxeekum ki gën a tedd ci yéen mooy ki nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy ki ma gën a ragal mooy ki ma gën a warmaal loolu moo tax ñuy tamit ñu tënkuwaat ci innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna ak wa'tasimu bi hablillahi jamii'an wala tafarraqu moo waral lii ñuy def nii sëñ dàmm waaw.